li nga xamantene dal def nañ ci man lu doy war à ce que ba tey li ma am ci Sébikotane nii ni est waaw je peux dire que c'est grâce à eux ak sama éducation nekk na jour bi nga xamantene jean à travers mes œuvres bëgg naa bëgg naa lancer ay messages yu yu yu bëri ba pare à travers mes œuvres tamit joxe éducation à à à la population sénégalaise aussi tamit euh, globaliser li nga xamantene mo jëm ci walum suñu culture suñu aada et truc concernant l'Afrique oui mo nek li nga xamantene dal moy sama ki quoi à travers mes mes bon art plastique genre nek na li nga xamantene du da ngay du nekk na li nga xamantene dal du da ngay ñëw rek genre man ko du jour au lendemain di ko def parce que ben instant don la après ya suñu borom mo koy def ci yow léegi après yow yaay xol ni ngi koy motalé mottalikaay bobu nak moy di ci nek à chaque fois chaque jour nga nek ci et truc di en tant qu'artiste, artiste li ngay def œuvre ba nit ki nga bu dina ci leçons wala dina ko interpréter ba dina ci def interprétation ne positif di di particulièrement à monsieur Dia et aussi à suñu maire bi tamit di parce que na li nga lu le, la lu lu jeunesse bi soxla la torop ça au moment où je te parle parce que Sénégal wala Afrique sax la wax ni euh, gars contrairement aux pays occidentaux joxuñu suñu benn benn genre joxuñu benn gëdd bi nga xamantene ne war nañu valoriser wala ñu valoriser suñuy art wala suñuy donc di di di ci profiter wala di lancer benn message aux autorités surtout.